Bakary nag fii la juddoo ci dëkk bi doomi Idi Kasama ak Ayda Badiane ci dëkk bi la juddoo waaye ba mu fee jógee nag booba màggangu waaye fii la demee lel sax ah Bakary Kasama nag xam nañ ne moom yaayam moom liggéeyal na ko bu baax yaayam ko nangoo suma jigéen la ne du tagga jigéen waaye ko nangoo na sëy la ko woon na sonnal jëkkëram ko nangoo taxawal jëkkëram moo tax nag yaakaar naa ay papa Kasama bu jëlee ci waajuram dina war a nekk ku baax. bu muy jógee fii de baayam liggéey booba xale la waaw baayam bu jël ko yóbbu ko mu yar ko léegi ba mu demee foofu baayam yar ko mu jànga nekk si football ñu naan ak ah, kii de li may def lu ñàkk fayda laag lii laag bari fayantu bari lii ah waaw ñu may na ko mu dimbale ko si ba yàlla jàppale ko si. mu góorgóorlu si toppa si rek bem am si ndam léegi am na si liggéey te liggéey bi taxawu si na si waaw taxawu na si waaw eh, waaw fii la nekkoon di dem school di football la xale yi ba yàlla def papaam génn àdduna rakki papaam yóbbu leen ñu nekk ki rokki papaam nekk foofu di bete di yëngatu ci football ba yàlla de mu ñëw nekk refli nekk refli nekk refli di ko jàng di ko jàng ba yàlla may ko ci fi mu toll nii tey. comme time boo fa demee soo ko laajtee ñu ne la mu ci fil bi foo demee foofu ngoon foo laajtee ñu ne la mu ci fil waaw li moom lu mu yàgg a bugg la. alhamdulilah ko yàlla ndax lu ñëpp bëggoon na doon soo ko amee muy sa doom da nga ko sant yàlla xam ne yàlla may na la lu rëy ku mel ni Papa Gassama Gambia ñëpp ku nekk bëggoon naa jur tey Papa kon na bu la yàlla mayee yow nga jur ko muy sa kon nga sante ko yàlla maa ko koy yedda ba tey mu toppa si liggéeyam am si fayda te yaru waaw am respect si nit ñi te dafay génn di dem si réew mi na am fayda rek mu respect nit ñi comme tasee mag ba mu tasee mu xam ne kilifaam la waaw xale yu mu tasee mu xam ne ñii sumay rakk lañ muy fooy ak ñoom di reex ñoom ndax ndaw yi tamit ñu ngi góorgóorlu ci football ñoom itam ñu ngi ci ko am te moom itam mu ngi leen di jàppale ci football bi ndax léegi dina leen di jox ay football di leen jox ay veste di leen dimbale ci football pour ñoom itam ñu mun a doon dara ëllëg. waaw dañ ko dee seetaan ndax boobu man maa ngi amee télévision every match am moom lañ dee yàkkamti sax pour mu ref match bi kontaan am ne suñ doom a ngi ci dara. ñoo kontaan bu baax a baax a baax eh, mu gën a góorgóorlu rek xam ne defalul boppam Gambia lay liggéeyal ndax tey fu mu toll fu dem turi Gambia la fa yóbbu fu taxaw ci àdduna bi turi Gambia la fa yóbbu kon mu gën a góorgóorlu rek gën a siggil Gambia xam ne Gambia ñoo ko fu mu dem rek Gambia la demal fu mu dem si àdduna bi Gambia la fa nekkal kon mu gën a góorgóorlu gën a siggil Gambia ndax fi am ni fi mu toll nii mun a passé foofu rek laa koy yeddalu